asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures euh, jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba Moreau ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle daal di dalal Mouhamadou Lamine Diop nekk ingénieur de pêche et de l'aquaculture chargé de communication bu intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture ñu daal di yéene waxtaanee lépp lu soxal jafe-jafe yi nga xamante ni euh, secteur bi la mi ngi koy faral di jànkonteel fii ci Sénégal ak tamit souvent coow yi nga xamante ni dafay am ci licence de pêche yi euh, lépp daañu ko waxtaanee ak tey jii suñu invité Mamadou Lamine Diop ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. Euh, salaamaaleykum salaamaaleykum Moro salaamaaleykum auditeurs yi. Mm-hmm. ñu ngi profité ci occasion bi di nuyu képp ku ñuy déglu. Mm-hmm. mais di nuyu aussi képp koo xam ne. yaa ngi liggéey ci napp euh, yaa xam ngay def pes ci ngay nappee ci bateau ngay nappee ci gaali loocoo ngay yennu jën muy de ngay waas loo mën di def rek te di dund ci géej gi ñu ngi lay nuyu di la ziar. ca mi ngi noonu ñu koy remercier bu baax a baax Mamadou Lamine Diop ci disponibilité am tey jii am ngeen intersyndical man dama lay laaj seen intersyndical lan mooy seen objectif yéen. Euh, bon intersyndical bi boo xoolee objectif bi mooy défendre défendre. Euh, défendre euh, taxawaw taxawu. ci mm. wolof taxawu liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur bi mais taxawu aussi ressource bi parce que dafa am ñaari as yu ci am mooy ressource humaine bi ak ressource halieutique bi. Mm-hmm. parce que jën bi euh, gàncax bi moo tax ñu nekk fi. Mm-hmm. donc foog ñu taxawu gàncax bi mais taxaw aussi liggéeykat yi loolu mooy taxawaayu intersyndical. intersyndical mais yéen mais mais mais du may dégg du ngeen yëngu-yëngal du ngeen def dara. et pourtant yoo xam ne mais yéen yan manifestation wala kii ngeen di organiser pour intéret wu euh, li nga xamante ni moom mooy ressources halieutiques yi wala tamit ñi nga xamante ne ñoo ci yëng comme ni nga ko waxee ressources humaines yi. waaw mais xëy na euh, depuis problème bii nga xam ni moom la réew mi jàkkoonteel lañ ñu déggul mais ñun depuis. boobu ñu ngi ci ñu ngi ñuy kaas ñu ngi dem grève ñu ngi. yan façon grève ngeen def defagum ngeen grève de la faim. de la faim moom. Hmm. Euh, man xam naa du ma bokk ci ñi koy jiite sax. Ah, gis non gis ni ma toll man. Ah, dama dama faim ba pare. mais fii fii ku bëgg sa aajo faju da ngay def grève de la faim. waaw mais xam nga lutte moom euh, hmm. euh, xeex moom boo gisee da nga gis ci front yu bare. Hmm. yéen yéen façon fa yéen façon. technique ngeen di faral di def bon def nañ grève def nañ participer nañ ci ay ay émission télé. participer nañ ci ay débat expliquer nit ñi problème bi nga xam ne moom la moom la secteur bi jànkonteel mhm. li koy firndeel mooy li ngay dégg coow li ngay dégg nii yëpp mhm. fekk na waxoon nañ ko ci ay plateau télé yàgg na après dinaa la wan mhm. euh, li nga xam ne moom moo tijji woon baal bi euh, indil naa la kayiti sax mooy lettre bi nga xam ne moom lettre ouverte bi gay defoon lim ciy wax fekkoon na wax nañ ko déclaration bi euh, suñu naataango ñu bokk intersyndical liste observateurs yi defoon fekk nañu wax ko. wax ko hmm. que ne boo xoolee ci ci ci ci euh, euh, euh déclaration euh, GAIPES bi. Hmm. Euh, mooy lettre ouverte bi il parle de type de licence boobu ñu naan licence de pêche. Hmm. démersal ko ci option poissonnier céphalopodier bi nga xam ne amul foog naa ni intersyndical bi moo ko njëkk a yooxu avant ah, yooyu yëpp wax ngeen ko soulever ngeen waaw soulever nañ. mais Sénégal souvent da wax kenn du la faale. moo tax ma ne bii moom bii moom bii moom bi ñu ko waxee. Mhm. Euh, à l'époque madame Aminata Mbengue Ndiaye moo fi nekkoon. Mhm. aussitôt dafa réagir. te des na tey dinaa la wax yeneen scandale yoo xam ni syndicat bi moo ko wax. ñu mhm. retiré ko parce que. boo ma ko per boo ma ko yan yan scandale. waaw ma boo ma ko permettre dinaa la. ci wàllum pêche waaw ci wàllum pêche dinaa la wax dinaa la wax tuuti. ñu def tuuti histoire. wax la lan la fi euh, kii di monsieur Alioune Ndoye actuel ministre fekk. Mhm. lan moo waral coow li. parce que boo xoolee nañu commencé ci zone de pêche yi. Mhm. Euh, euh, zone de pêche yi tey boo demoon institut universitaire de pêche et aquaculture bi nga xam ni moom mooy jàngal ingénieurs yi génn. Mhm. nga laaj je le salue au passage le docteur Malick Diouf. wala nga dem. FST nga laaj le professeur Abdoulaye Diop nga xam ne BVL dina la wax ni Moro ñu ngi juree ci boo demee ci ndox mi ci plan bi jën yi ñu ngi juree ci zone yi nga xam ne profondeur bi matul 30 mètres parce que Moreau pour wax lan rek gàncax gi àdduna bi lépp a ngi dépendre ci soleil bi. Mhm. soleil bi mooy dugg ci ndox mi ndox mi def euh, photosynthèse photosynthèse def algue mu nekk premier mayon aliment euh, premier maillon chaîne alimentaire bi. Mhm. léegi scandale bi ne foofu laa la bëgg expliquer. Mhm. tey tey fii ma lay wax ne nii bépp gaal bu nekk Sénégal. bu ne Sénégal di nappee salut mooy caax am na droit am na ndogal mm-hmm. autorisation par rapport au code de la pêche mm-hmm. pêche ci zone de reproduction boobu mm-hmm. jën zone boobu nga xam ne jën yi dañ fay jure et ma wax fan la pour ñi may déglu xam fi jën yi di jure waaw parce que suñu nee fi jën yi di juree boo demee ci plan bi ci géej gi jën yi dañuy wàcc ba nga xam ni profondeur bi matul 30 mètres ñu fay jure tey jii may wax ak yow bato yi nga xam ne ñooy salitier yi gën a yi gën a yi gën a sore fi ñuy nappee mhm. ah, utal naa la ci exemplaire yi gën a mhm. sore fi ñuy nappee ñu ngi nappee mhm. comme bii ma la defal nii trente ah ñu ngi na nappee trente nautique su ma ne bii trente cinq la à trente boo xoolee bu baax la profondeur mu ngi nekk ay vingt huit mètres. trente cinq bi moo nekk nii. waaw wax la waaw boo xoolee pour wax la comparaison. trente cinq nautique. gis nga mooy fii à trente cinq nautique. la la profondeur est à vingt huit mètres. bi. ça dire que ba fii. jën yi dañ fiy juree. Mhm. nan la ñu mën a permettre ay bateau mhm. ñuy dem am autorisation di nappee fu jën yi juree. te loolu la fi Alioune Ndoye fekk. Mhm. leneen boo xoolee. Euh, maanaam ñu permettre leen <laughs> maanaam foo jën ya nekk ñu jël leen. kon géej gi euh, dootul des dara. waaw léegi. Euh, lii mooy benn ci li ma lay ni scandale la. c'est-à-dire que nan la ñu mën a élaborer benn code de la pêche boo xam ne day permettre. navire yi ñuy nappee ci zone boo xam ne jën yi dañ ciy juree te waxuma la benn ñaari navire de dama ne la bépp gaal bépp naviir buy nappee salut am na droit pêcher dans la zone des euh, boo demee Casamance au large de Casamance. Mhm. navire yi gën a sore ñu ngi nekk à trente nautique ti ti jusqu'à trente cinq mille la profondeur profondeur bi dafa mu ngi nekk à vingt huit mhm. alors que beneen scandale bi mooy zone boobu sax jën yi amuñ fu ñu làqatu parce que vase la ban la. Mhm. dañuy teg mbaal mi rek lu ñu fa fekk roñ est-ce que ñun war nañ di laajaat di demander lan moo tax Sénégal amatul jën mm-hmm. bu fekkente ne fa ñuy juree lañ leen di tibbee mm-hmm. leneen li mooy li nga xam ni euh, tey feeñ na ci euh, mm-hmm. euh, ma commencé waat comme li ma la doon wax léegi ci lettre bi nga xam ni moom la la déclaration de de de la lettre ouvert de de de de bi nga xam ni moom la ubbee moom moo ubbee woon coow li boo xoolee. Mhm. si deuxième euh, deuxièmement bi. Mhm. il dit que les ressources halieutiques démersales côtières. Mhm. sont en danger. en fait il dit les ressources démersales côtières entre parenthèses salutiers sont en danger sont sont en danger. et un arrêt muy ne. toogoon nañ waxtaan ba nañ nañ bàyyi xeetu jën boobu noonu noppal ko ma lay wax ne syndicat bi moom moo ko may wax beneen scandale tey fii. ci diggante bi lii 2006 lañ toogoon waxtaan ne buñ ko buñ leen laalati ci diggante bi avant avant. Alioune Ndoye di ñëw gars yi génne waatoon nañ ay licence bañ doon exploité jën bi syndicalistes yi ñoo ci wax su ma nee dam lu leer naññ laay wax. Mm. dama ne mm. génnee nañ fi ay licence de pêche démersale côtière espèce boo xam ne dañ ko gelé woon 2006. Mm-hmm. c'est euh, euh, syndicat bi ñooy wax. Mm-hmm. di yooxu ba ñu retiré waat ndànk licence bi kenn yëgu ko boo xoolee tey man bi ma liiree déclaration gay pes bi. Mm. dama ne peut-être que ne yëgul loolu pour wax na rek. scandale yi des fois ëpp na sax li ñuy wax. mais mais pour wax ne rek. Mhm. fi la ko fekk mhm. boo xoolee. beneen bi ñuy wax nii ci toujours dans sa lettre euh, licence de pêche démersale euh, chalutier de pêche démersale profond option crevettier mooy bi ngay dégg ñu naan euh, arm armateur yi naan ñun ñoo ko wax mais ministre bi reconnaître na ne erreur la woon ñun ñoo ko wax ci benn plateau télé. Mhm. aussitôt Tata Aminata Mbengue Ndiaye jël ay instructions kii ko mais xaaral ma wax la beneen. Mhm. beneen beneen beneen problème beneen beneen problème. ci napp gi. Mhm. tey pour ñu mën a def ay projection c'est-à-dire ne jën bi sonn na jën bi sonn na CROD mooy centre de recherche océanographique moom mooy def ay recherche ne jën bi noppi na jën bi noppi na recherche yooyu pour mu mën ko def li ñi ñaan observateur ñooy dem géej indil ko ay xibaar ne ko lii la ñu débarqué lii la ñu débarqué lii la ñu débarqué mu def ay projection ne nañ noppal lii nañ noppal lii bi ñu débarqué observateur yooyu. Hmm, parce que maa ngi la bëggoon laaj ci observateur yi sax. voilà njariñ est-ce que seen njariñ. voilà tamit ñu ngi ñu ngi leen di bàyyi ñu def seen liggéey normalement. defuñu seen liggéey normalement lan la observateur wala def. exactement voilà hmm. observateur boo ko yebee ci gaal. Hmm. moom mooy xool moom mooy xool gaal gi mooy saytu gaal gi ndax fi muy nappee war na fa nappee ni muy nappee war na ko nappee ndax. jën bi muy aj war na mm-hmm. ko aj mm-hmm. parce que Maodo ma fàttali ne boo demee ci biir géej gi dafa am jën yu dund ci kaw ndox mi ñu leen di wooye pélagique am ñuy dund ci digg bi am ñuy dund ci suuf tey yaboo ak jay ca kaw la ne tey euh, coof ak euh, crevette ak sol ñooñ ci suuf lañ ne cest à gaal goo xam ne da nga koo jox danga koo jox licence pour mu napp jënu kaw su indee jënu suuf am na lu ci ñuul mm-hmm. cest fa nga ko yem yemloo woon yemu fa loolu observateur bi moo koy moo koy xool mais beneen li mooy observateur mooy indi ay éléments. Mm. jox ko kuréel kuréel def ay projection simulation ni ah jën bi kat sonn na nañ ko nañ ko noppal tey observateur bañ ko wàccee ci gaal yi. Mm. ëpp na dix ans eh, amatul observateur wala defatuñ seen liggéey. dañ leen dañ leen dañ leen wàccee. Mm-hmm. wàccee observateur ñu ngi fi. Mm-hmm. dañoo am dematuñ ci gaal yi. Mm-hmm. su ma nee dematuñ ci gaal yi. code de la pêche moo ko wax section trois. indil naa la code bi. que ne les de pêche bépp gaal goo xam ne da ngay nappee Sénégal. dans les juridictions sénégalaises da nga war a embarquer observateur njëriñu observateur boobu moo ñu indil xibaar ñu war a def projection jën bii ngeen topp di ko napp yéen dafa sonn noppal leen ko. Mhm. dama ne pour wax leen rek scandale yi mu fi fekk. nan la mën léegi observateur yi moom jël nañ leen tegee leen côté ci suuf. léegi ñoom fan la koro di jëlee xibaar yi mu waxee ne jën bi sonn na ba xam nga li gën a doy waar. ak xool fi ñu war a napp mhm. war toppatoo Sénégal la ñu war a napp lañ war a kii ñu génnee pour wax ne rek ne ay scandale yi la nan nga mën a xalaatee ñu wàccee scandale ñu wàccee observateur ci bato sénégalais yi yëpp leen ci bato yu nappi bitim réew bato yu nappi Gambie bato yu nappi Libéria mm-hmm. lu suñu yoon ci ñooñu mm-hmm. observateur bi suñu xibaari bopp la war a indil mais dañ ko débarqué ci gaalu Sénégal yi yëpp ko ci gaal yi nga xam ne ñoo ngi nappee am nañ licence Sierra woon am nañ mm-hmm. licence feneen ak feneen. ci yeneen dëkk. lan mooy njëriñ li yaa angi suuroos pour euh, euh, loolu di benn ci ci kii. Euh, scandale yi ma ñëw ci kurut bi nga xam ne moom moo ñu war a wax mhm. moo ñu war a wax jën bi sonn na jën bee sonn na que bato bi itaf dem bato bi nga xam ne mooy bato de recherche bi mhm. ministre da koo fekk pann moom moo jël initiative na dina ko réparer may dañ koy dañoo wàññi woon budget pour ne dañ koo dagg ministre moo jël initiative ne na ko delloo loolu lépp mu ngi ci la lettre du forum civil mhm. forum civil bi mu def mooy euh, kiyal naa la ko mooy lettre forum civil waaw que Euh, lettre bi forom civil def pour wax ne ne ñoom ñëpp ko muy forum civil bi que muy acteur de pêche yi hmm. ñu ci baree baree baree baree li ñuy wax yëpp scandale lu ci baree bari dëgg la mais li nga xam ne nag moo jaral leeral mooy fi la ko ministre yi fekk hmm. fi la ko fekk maanaam du Alioune Ndoye fi la ko fekk yàgg na fi parce que problème mu pêche yi a na non en fait du si du si dafa toll dix ans boo xam ne hmm. dañ fi nekk di def lu leen neex léegi euh, euh, bi ministre bi ñëwee mu ne day siffler la fin de cette gestion gabégique que ne mhm. yàq bi caxat-caxatee géej gi doy na mhm. mais su nee caxat-caxatee géej gi doy na Modou wolof def ne mhm. ku ñu bett nga defar sa toogaay na nga toogee woon baaxul que dafa ñëw pour defar nañ bàyyi mu xool parce que pour wax ne ne gars yi à la limite moi loolu sama idée personnelle la je me ne est ce nekkul ne moom ci boom sax dañ koy essayer galgal pour que defar boobu moo xam da ko bëgg defar pour sénégalais yi du ci antu preuve ma la ci jox mooy tey boo xoolee euh, indi naa la journal bi fii. Mhm. Euh, euh, le navet Fu yu mhm. bi ñuy wax ne moom moo jàlloon ci moo jàlloon ci moom la ñuy wax ne. Mhm. dañ ko jox licence nga dégg ni am na navir boo xam ni mu mu imaginer benn navire mu ngi tudd Fu Yanyu 98 89. gaal gi mook yeneen gaal yi waral coow yëpp. Mm-hmm. am nañu promesse de licence pour li boo amee promesse de licence moo am nga licence. Mm-hmm. parce que l' état c' est une continuité. Mm-hmm. am nañu promesse de licence depuis 2017 mais imaginez pour wax la rek que ne yi doo comprendre seen i seen i seen seeni seeni i seen maguy. gaal gi mu ngi ci bateau yi nga xam ni am nañu seen promesse de licence ba pare léegi procédure lañ nekkee mu ngi waat ci liste 52 li bateau yi nga xam ni ñu ngi laajal licence. sama wax. ce qui que quelque part aussi da ngay comprendre acteurs yi. parce que gars yi dañ leen dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor ba ñoom ñoo yey yooxu ñoo yey yooxu créer scandale parce que gestion bi baaxul depuis de années. loolu foofu mais mais Mamadou Lamine euh, coow li am ci diggante xawma français chinois yi ci ci ci ci accord de pêche loolu est-ce que mën nga ñu ko leeralaat exactement. ñu comprendre parce que fan yee tamit jur na fi coow lu bari. waaw waaw d'abord Chine France voilà. Mm-hmm, mm-hmm, d'abord pour wax la rek na loolu aussi scandale la parce que moo su ñu demee ba chinois yi. Mm-hmm. ak Séné ak ak ak français yi. te xëccoo suñu géej gi ñun sénégalais yi. Ah, moo fi ne des enquêtes ay ñooy xëccoo ak ay français géejub Sénégal gi. am ñu far fii am ñu far fii. waaw bon comme campagne électorale nag lañ ko def quoi. sol mm-hmm. say tiset di ku ne di yooxu. Mm-hmm. ku ne di tam sa morom mais ñun ñu ci féete ñun. fan lañ ci féete ñun gaalub gaalub looja gi te tey c'est pourquoi dinaa ñëwaat aussi ci importance su appel bi président de la république def. Mm-hmm. parce que il a demandé à ce que ñu def une gestion. ñu ñu toog ñu gestion concertée mm. du code de la pêche mm. parce que xam nga man bi mu ko waxee mm. dama ne man dama sant yàlla li tax ma sant yàlla mooy je me suis dit que ne xëy na président am na information yëpp parce que li tax ma wax loolu mooy moo Moreau ma dafa mal sa application code de la pêche mais damaa jàpp man ci sama xel ne élaboration ba nañu ko tëggee baaxul baaxul bañ koy parce baaxoon. Mhm. du ñu dem di autoriser navire yi ñuy napp ci zone boo xam ne jën yi dañ fay juree. Mhm. mais na comme élaboré nañ ko pare li ñu ci baax ak néew ku lépp bon li ci baax ak néew nañ ko appliqué li ci baax ak néew mooy observateurs yi te wax na leen beneen beneen beneen ci observateur wax na ne état doo comprendre sax la ñi fi jiw gi. mais mais mais code bi am na ba pare. Mhm. application bi moo am problème. code bi am na ba pare. application bi daa am problème. mesure benn bi may njëkk wax rek ci application bi mooy débarquement observateur yi. man waxuma ko code bi moo ko wax moo ne les navires qui navires yi nekk dans les eaux de juridiction Sénégal doivent embarquer des observateurs seen njëriñ mooy ñoo ñu indil ay éléments pour ñu mën a def des projections dans le futur pour wax ne jën bi sonn hmm. nan nga mën a comprendre ñu débarquer leen ci bateau Sénégal yëpp yëpp leen ci navire étranger yi nappee bitim réew. que boo boo doon lim scandale yi fi ngay fanaan di wax ne euh, may wax rek par euh, de passage aussi. Mm-hmm. lii mooy li nga xam ni yi may lim nii mooy yi nga xam ne ci scandale boo ko limee. personne ne se sentira indexé. Mm-hmm. bokkul yi nga xamante ni. boo ko waxoon tey musibaam parce que certains vont penser que ne da nga leen di indexé directement mais scandale ci kaw scandale. di wax la rek ne la. Mm-hmm. faites une enquête nga xool. Mm-hmm. kii dee ma leeragul te su amee dañ ko wax mooy Alioune mais ñi fi jógee ñëpp fa dugal seen i gaa. mais souvent problème bi am Mamadou Lamine. si mhm. euh, nappeuru euh, pêcheuru Guet Ndar yi mhm. ak euh, Mauritanie mën nga ñëwaat ak ñun problème bi am souvent foofu à chaque fois dañuy gis ça revient à chaque fois peut-être ñu ndëpp ndëppal ko fay ko mais di nga ñu gisaat suñ toogee quelque temps mu revenir at ci problème bi am souvent ci diggante pêcheur Guet Ndarien yi ak Mauritanie. waaw lan moo koy andi souvent. waaw mais ma lay rappeler aussi. Mhm. doomi mool la. gànjul gànjul la. samay am na ñoo xam ne ñibbisi nañ barki dem juste avant confinement bi ñu ngi Mauritanie Mauritanie la ñuy nappee. Mhm. mais xam nga mauvaise bi ñu def fii moo tax jën amatu fi suñu mool yi obligé dem di ko nappi foofu. maanaam géeju Dakar amatul kii. non li ma la wax maanaam demee ba autoriser yenn mbaalu caax yi sàll yi ñuy napp ci zone de reproduction yi jë du fekkee ne ku juddu ñu rey euh, mënu fi yaatu léegi ñu dem pour nappi côté Mauritanie suñu demee moom moo lay jox licence ku la jox licence nag moo lay teg ay. Mhm. ay ay principe mm. loolu moom foog nga nangu ko te leneen aussi Moreau foog ñu wax ko sama mbokki mool yi dañoo dëgër bopp si naka non xam nga mool pour nga expliquer ko d' abord ne ko géej gi fii la yem boo weesoo fii Mauritanie nga dugg day ko loolu du ko mën a accès kii pour nga toog nga mool dàq benn banc de poisson bañ ne génn na parce que jën bi day daw mm. nga dàq ko mu génn Sénégal dugg Mauritanie nga ne du ko jàppi loolu problème lay ne et ça mu des nag ñi nga xam ni duñ fa am licence dem di fa nappi mhm. mu des ñi nga xam ni dañ du respecté protocole bi cest à dañ naan la Mauritanie nga war a débarquer nga jàpp jën boo xam ne xam nga ni boo ko débarquer Mauritanie amul xaalis nga daw indi ko senegal ba pare te loolu day jur sax waxuma la sax conflit mais accident yu dul jeex mhm. parce que pour nga comprendre pour nga napp benn jën sàcc ñëw jaay ko Sénégal ni nga koy defee da nga koy nappee buy Mauritanie boo comprendre ne jën bi amul kii nga nga génn mhm. dem en haute mer zone zone internationale door a ñëw Sénégal lu ne mën na la fekk ci yoon wi Mm-hmm. sa moto su paanee mbaa mu fay kenn dootu la gis. Mm-hmm. léegi mu des tous les jours amul bis boo déggul ne pêcheurs yi. Mm-hmm. ñu ngi xeex ak ga ga mborom bato yi. chaque jour xam nga ko waral da ci am bato yoo xam ne. Moro mën naa ni à la limite dañoo am autorisation pêcher. waxuma la ci tefes gi de ci bii kër yi. parce que di dix mètres dix kilomètres. des côtes bato bu ñu may yow boo toogee ci côte bi nii à dix kilomètres. sa sa bët da la koy may. koofu gaalu loo ca na ko rombul yàlla mm-hmm. léegi suñu mayee benn muy pêcher te loolu c'est le moo ko permettre mm-hmm. muy pêcher à dix kilomètres des côtes léegi il est en compétition ak ak gaalu looco bi mm-hmm. est-ce que dans ces conditions war nañoo laaj lan moo tax accident di am munoo ki nga xam ni mën na ma yéeg te du ko yëg gaalam mën na daw bato bi mën na daw ba tasaare gaal gu ndaw gi te moom te moom du ko yëg su fekkee muy nalaw parce que du ko yëg yow kooku nga boole ko muy zone bu muy nappee mu ne en compétition di xëccoog jën gaalu looca bi. ça pose problème ça de pêche artisanale bi lan mooy ay jafe-jafe. non pêche gis nga pêche artisanale. waaw d' abord man. parce que déjà ñoom bateau yi moo leen jaaxal. bateau yi moo leen jaaxal mais hmm. bateau yi moo leen wax la élaboration. Hmm. code de la pêche étranger yi ni ñu ñëwee ak moyens yi ñu am mbaal yi ñu utiliser. ainsi de suite licence de pêche yi ñuy am. et puis duñ ko respecter même li nga xamante ni code bi loolu la wax. voilà xam nga xam nga d' abord man su nekkoonte ne man maa ko doon maa ci doon xalaat parce que dama jàpp ne code de la benn nit. benn secteur benn benn individu benn groupement benn acteur cest benn mhm. benn benn kii kese mënu ko def mhm. dañuy woo mhm. acteur de la pêche artisanale yi woo acteur de la pêche industrielle yi dem woo scientifique yi waa CROT dem woo biologiste yi parce que tey boo xoolee euh, euh, code de la pêche mi ñu koy defar élément distance kese lañu jël cest à que dañoo jël benn affaire boo xam ni dañu ne boo demee ndar kéelum ndar à à six Mm-hmm. lañ commencé di autoriser gaal yi ñuy napp. Mm-hmm. même distance boobu lañ appliqué Casamance. Mm-hmm. alors que la profondeur bokkul. boo demee Ndar. à Cynoti da ngay boo Cynoti da ngay am ay quarante mètres de profondeur. boo demee euh, Casamance à Cynoti. ay quatre kil ay ay quatre cinq mètres de profondeur ngay am foo xam ni yow boo taxawoon ci suuf da ngay séen ci kaw. kon y' problème. mais tey ji Mamadou Lamine lan moo mën a euh, jàppale pêche bi pêche artisanale gaalu loco yi lan moo leen mën a jàppale exactement. bon li leen mën a jàppale. maanaam lan ngeen di suggérer autorité étatique yi ak seen ministre Alioune Ndoye. bon ñu mu woote waxtaan. Mhm. parce que foog naa ni waxtaan kese moo mën a régler problème bi. Mhm. waxtaan woo xam ne dañuy woo forum civil mu toog ñu woo pêche industrielle mu toog. su ma nee pêche industrielle nag parce que yàlla nattoon nañu ko pare. Mm. ñu boole chinois yeeg français yëpp woo. woo yàlla nattoon nañ ñu ne ñoom ñoo ñuy xëccoo suñu moomeel nañ leen woo ñu toog ñu woo forum civil mu toog ñu woo pêche artisanale mu toog ñu woo COROD mu toog ñu woo scientifique ñu toog dama ne. géej gi munuñu ko def politique de pes bu baax mukk te boole wuñ ci scientifique yi. kon lu ñuy yuuxu ci suuf si géej gi la la rawee. fa la yéesee. bradage ay littoral. non euh, scandale foncier ainsi de suite. dama ne yow su ma doon dañu fàtte bu bu géej gi. Mhm. xoolal lii. Mhm. anam sax la lettre de jamonoy Pape Diouf laa lay wax de. lettre bi. Mhm. ça date de 2012. Mhm. Pape Diouf 2012 waaw li mhm. euh, tujjil ci ginnaaw nga xool. Pape Diouf moo ko bindoon. ministre de l' économie. xam nga lii pour lan la. Euh, Moro pour wax ne pour fàttali. ministre de l' économie. que du Sénégal dafa yoral observateur yi liiral foofu deux milliards mais yow man dama jàpp ne dañoo waroon yàpp ci gaal milliards mi ngi yi suñu ministre yi mhm. leen géej ba ñu xajum li tax observateur bi daj yow kenn koo xam ne bëgg senegal moo tax mu bañ njabootam bàyyi këram dem géej pour ñaari weer ndekete ñoom non seulement dafa versé luñu leen IPRES mhm. waxuma ko vous maanaam eh, eh, observateur yi tamit ñoom ci ay situation yu yu yu dama lañ doon xaaral ma ci la ñuy dund ba léegi ba léegi nii lii nii ardoise bi mhm. l'état le doit euh, te lii ba léegi amul avancé depuis 2012. depuis 2012 boo lii léegi war na ëpp 2 milliards. non non en fait y a eu un consensus ñu waxtaan. Mhm. ba ne parce que ay arrière la. Mhm. arrière yoo xam ne fayuñu leen ko bi ñu waxtaanee ñu observateurs yi d' accord ministre bi d' accord ñu bind ah, mhm. sur papier acté. ne yoral nañ leen deux milliards et quelque. mu ngi fi ba léegi joxuñ leen dara. ñaar dërëm. te observateur yi kenn yënguwul yëngal. non mais xam nga suñu deux milliards. comme ñeneen ñi li ñuy def. mooy li ma lay wax. gis nga état dafa dafa dafa dafa doy waar. su ma nee dafa doy waar gis nga ministre yi fi yi fi jaar yëpp. Mhm. man personnellement je me suis posé la lu ñu fi nekkee woon à part recruter seeni éléments. ngay mhm. laaj lan lañ doon liggéey. waaw ministre la pêche yi fi nekkoon lan lañ doon liggéey à part recruter seeni éléments à part def xaalis seeni poste parce que noonu laa ko mën a expliquer quoi bon ji ñu ma leen ji ñu ma leen euh, nu mu tuddati corruption quoi que soit mais parce que aw ma ci preuve mais doy na waar nan la ñu mën a joxe. ay ay ay ay navire ñu jox leen licence mm-hmm. alors que xam nañu ne jën boobu noonu mm-hmm. dañ ko waroon a noppal mm-hmm. to acteurs yi dajale woon nañu waxtaan ne dañoo war a noppal jën boobu depuis 2006 nga rocceeku ci suuf jox leen ay licence eh, eh, syndicat bi yuuxu yuuxu nga rocciwaat ko ndànk yaa mais mais mais Mamadou Lamine lan moo waral léegi jën cher ci marché bi ak ressources yi ñu am ci Sénégal yëpp ak ni nga ko expliqué mais léegi da ngay gis ni sax parfois jën sax léegi actuellement moo gën a cher nga jënd viande ci marché bi ça pose problème. waaw surtout yenn xeetu jën yi askanu Sénégal euh, ñu bari sax ñemeetuñ ko waxaale ci marché bi. waaw mais ak ah. ressources yi ñu am yëpp. c'est palliatif yi euh, euh, Moreau c'est xam nuñ koy waxee ci wala li ngay wax ni moo koy expliquer waaw loi offre demande la mhm. loo gisatul ñi di ko xëccoo mu cher gis nga ñun bi ñu nekk xale man ne naa la doomu mool la hmm? jën da ko doon bër doy kene coof da ko doon gis ci kër yi mhm. tout le temps tey tey pane ménagère bi su jotee ci yaboy sant yàlla sant yàlla xaaral ma te yaboy bi sax dafa cher xam nga loo xam ne mën nga ko mën nga ko mhm. vérifier mhm. tey ci may wax ak yow étranger bi pour ne di di di di indi di tudd nit ko étranger bi ki nga xam ne du senegal kan je dis du Sénégal je suis pas raciste mais ku xonq coy xonq coy pour parler des Français et des Asiatiques ñooy wàcc yarax mhm. jënd yabooy bi ñëw marché central jaay ko suñu yaay yi. ñooy wàcc. yaraax ci tefes gi. jënd yabooy bi ba nekk yëpp. waaw ñu nekk ci gaalu locco bi. waaw waaw ñëw jaay ko liñ jaay ko ñëw indi ko marché central. Mhm. jaay ko suñu yaay yi. Mhm. ci dëkk boo xam ne dañu ne dañoo libéraliser bon commerce bi. yow ñun ñoo ciy dee rek. ils se font des milliards après dem. dem seen tey nga xool ñoom ñiy jiiñante ñoom ñiy jiiñante ou quoi que soit cest boo doon lim li fi nekk scandale tey coow li boo waaw doo fi jógee mais tey coow li li ko waral yëpp mooy xëccoo chinois yi. ak français yi suñu géej gi. Mhm. mais li ci nekk suuf ci ay scandale moo ëpp. moo ëpp mais mais parce mhm. mhm. wax ba Euh, politique de de de bu baax politique sectorielle de pêche bu baax te observateur bi demul géej certains vont me diir que ne non navire de pêche industriel yooyu ñu ngi indi ay journal de de xam nga lan la. dañu mhm. waxante dëgg. yow mënoo ma di surveiller ne ma exemple nga ne ma ah, yow kat waroo débarquer yaboy léegi na ma indil euh, sa journal de pêche jën yi nga débarquer naaj ci def yaboy non <laughs> voilà. Mhm. ñu ko bàyyee moom moo. dañ la permettre da ngay bind lu la ah, wax dëgg yàlla suñu la ko bàyyee ne moom mooy débarquer moom mooy débarquer. Mhm. moom mooy indi information bi mu lim nappee ñu wàcce observateur bi ki nga xam ne état la fi toogaloon di xoolal état sénégalais la fi toogaloon di xoolal sénégalais parce que. mais man observateur yi sax bi ma doon mujj dégg seen mbir même problème mu arraisonnement dafa amoon parce que bu ñu arraisonné bateau ainsi de suite am na pourcentage bu ñu ci war a am ainsi de mais nee nañ même xaalis boobu pour jot si tout un problème. observateurs yi loolu bokkoon na si lu ñuy jooy moo tax yaa yaa quelques années waa waaw waaw te jógu fi sax waaw ma xam benn suñu arraisonné ab bato pour ñu jox leen koppar yañ ca moom ça pose problème ah. du am suite mm-hmm. voilà li ma lay wax ci loolu mm-hmm. xam nga lan naa la léegi suñu limee li fi ne ci scandale am na ci type de scandale yoo xam ne avec des preuves mm-hmm. suñ ko limee certains vont se voir indexés te ñun Sénégal lañ fi nekkal sénégalais lañ fi nekkal lu jëmale napp kanam moo ñu amal njëriñ que ne man je suis ingénieur des pêches aquaculture euh, euh, su ma yàlla dimbalee sul loon corona bi ren laa waroon soutenir sama doctorat en production halieutique. Mm-hmm. dépassé naa yenn niveau yi que ne je pas indexer qui que soit li ma ñor mooy li nga xam ne dapp doxul ci napp gi dama manière objective. Mm-hmm. ñu wax ko mais pour wax la rek dellu si que man je comprends waa Gay Pêche je comprends Forum Civil napp gi. dañ ko caxat caxatee pendant des années. Hmm. maintenant le ministre Aly Ndoye ñëw ne dama bëgg a defar napp gi siffler la fin quoi de hmm, cette gestion hmm, gabegique parce que que muy le ministre man. yàlla yow nee nga sax dégg loolu mu wax day defar napp gi. boo moytu kon ñu ngi koy fexeel pour jële ko fi. non mais parce que defar gi ñu bëgg a defar arrangé wul ñu bare. arrangé wul ñu bare te moom laa wax man la ku ñu ku ñu bett. nga defaraat sa toogaay ni nga toogee woon baaxul. dama ñëw pour defar yow xam nga li may defar nga yuuxu c'est quoi ça pose ça pose problème mais dañuy gis liñ koy jiiñ liñ mm. man man eh, mm. euh, Moro ça euh, dama koy leeral mu leer mm. man Alioune ci napp gi bon le ministre Alioune Ndoye je le respecte ci napp gi la fekk yàlla defee jàmm fi la may bàyyi agent DPS la defaluma dara bokkuñu dara man bi mu nekkee ministre laa xam li may wax ni yàllaa tax ma koy wax que def sénégalais laa fi nekkal sénégalais laa laa laay défendre que dépassé naa état bu may su apple à prendre des responsabilités du ma géewlu kenn. Mm-hmm. dëgg laay wax te yàlla tax que ne li may wax nii kuñ ci jis de manière individuelle ma jox la preuve yu ci bare yuñ koy jiiñ. Mm-hmm. fii la ko fekk. man li nga xam ne moom laa jàpp man mu ne moom la gars yi koy fexeel mais moom. mënul mm-hmm. wax yéeg ci télé bi naan fi la ko fekk. mais pourquoi ses collaborateurs ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon defandoog ñi fi ne. mënuñ wax ne fi la ko fekk y' ça pose problème lu fekkente ne yow bi nga fiy nekk ministre man maa nekkoon sa collaborateur xëy na defal defaloo nga ma loo xam ne sax bëgguma koon def naa ko mais bi nga fi jógee keneen ñëw wax dëgg yàlla booy wax ngir yàlla rek neel kii fekk ko fi. mais peut-être dañuy jàpp ni l'état c'est une continuité continuité. waaw mais parce que moom mooy ministre. même bu fekkente sax scandale yi fi doon am boobu nekkagul. ministre fi mu toll nii de moom coow li moom lañ ko yàkkale boo xoolee toutes les lettres là. Mhm. que ne la lettre du forum civil la lettre de Gaye Pes toutes ces lettres là dañ ko adressé à Alioune Ndoye. dama ne li ne ci lettres yi yëpp sans exception fi la ko fekk. te yéen yàgg ngeen ko dénoncé. non man mën naa la envoyé ay vidéo yoo xam ne. Mhm. benn bi je l'ai fait avec Tunkara beneen bi 2S lañ ko defee aussi ak Moussa Fall que ne ñuy dénoncé octroi yi licence yi ñu joxe licence de pêche démersale côtière yi ñuy joxe alors que dañoo gelé woon espèce bi en 2006. Mhm. ñuy type de licence bii nga xam ne moo ne ci ki euh, ki euh, lettre gay pes bi mhm. ci saa si la ko tataam te te te pour bu wax ne gars yi comment ils sont tordus mhm. yow nan lañ la mën a waxee syndicat bi ñëw ne la mhm. et bi ngeen joxe répondre ak disposition code de la pes bi répondre ak disposition yi ne ci décret d'application bi nga ne bon sa teewul teewul loi bi bañu ko mais moro tout ce qui n'est pas dans la loi est waxuma ko de lu newul ci code bi kay diina kii bi. yoon dàq na yoon na ko. Mhm. nan nga mën a ti ti boo xam ne gars yi ñun ëpp ñu leen xel ndax ñooñu mag foofu ñenn ñi ay docteur la ñenn ñi def nañ ay vingt ans d' expérience. Mhm. xam nañ bu baax liñ doon def. mais scandale yëpp nga cité tamit euh, Mamadou Lamine yéen yéen syndicalistes yi waroon nañ leen gën a dégg. waaw mais. Euh. waroon ngeen de gën a yëngu-yëngal bañ xam ne vraiment yéen a ngi fi yéen a ngi euh, kaasal lépp lu soxal ressource euh, halieutique yi ressource marine yi ainsi de suite. mais ñu ngi ko doon def man mën naa la envoyé vidéo xam nga. boo demee wala ngeen yuuxu ba sonn. ba boo ko morando ni secteur de la pêche xam nga boo xoolee feeñ toll nii. Mhm. nee naa la li ma la limal ci scandale rek ñaar rek ngay dégg. <laughs> ñaar rek ngay dégg de. Mhm. mooy chinois yi français yi. français alors que lu mat junne xaar ma wax la leneen man ba ma ñëwee ci ministère bi ba tey. ay retraité laa fekk ay retraité ñoo xam ne retraité nañ demuñu ils occupent les bureaux les moyens de l'administration ñenn ñi dañoo jàppee département ministère bi comme seen kër indi sa doom indi sa do rakkam indi magam mm. indi sa beau frère indi sa rakku jabar mm-hmm. ñëpp ñu casé leen ci ministère te ñenn ñi amuñ sax diplôme ah diplôme ñu leen recruter mais du recruter nañ leen fa teg leen fa. teg leen fa ñenn ñi sax man boobu ba léegi man mosu leen teg bët dégg naa ne ñëw recruter nañ mais mosu leen teg bët bi le ministre Alioune Ndoye déggee loolu mu ne xam nga pour wax ne am na liggéey bu mag il veut li ko ni ko kii waxee auditer le pavillon sénégalais. Mhm. c'est-à-dire auditer le pavillon mooy tax nga xam kan mooy kan. liñ naan diw peut noo la peut-être noonu la loolu lépp leer mais am leen lu gën a doy waar. Mhm. tey bi nga da ngay jënd gaal gi nga da ngay jënd bato bi nga ñëw pour demander Sénégal ñu xool capacité bato bi ne Euh, c'est inférieur wala inférieur égal à deux cent cinquante euh, TGV mooy capacité bi. Mm. ñun la fii nga war a nappee. Mm. nga yoot ndànk dem ci ginnaaw dem dem Las Palmas. Mm. yóbbu ko yóbbu capacité bi quatre cent. xam nga normalement su yegsee dafa war a changer. zone de pêche mais loolu moo fi xew léegi moom bëgg na auditer pavillon sénégalais bi. Mm-hmm. bëgg na auditer euh, nu personnel bi. Mm-hmm. mais pour wax la là où les gens mm-hmm. personnel bi rek. ñu ci bare bare duñ ci d' accord parce que dina feeñal lu baree bare. lu loo xam ne ñoom du leen arrangé. du leen arangé mais euh, tamit dañuy gis ne euh, actuellement dugg nañ si nawet bi sax ah mm. euh, si jamonoy nawet bi nappkat yi gaalu looco yi souvent ñi siy faatu dafay bare peut-être côté boobu protection la ñu ñàkk wala qu'est-ce qui se passe exactement ba heure bu nawet bi duggee rek da ngay gis ni accident yu bari day am pêcheurs yi yi faatu ci géej gi ainsi de suite. loolu lan nga ñu ci mën a wax ak tamit euh, état est-ce que jël na si ay mesures ainsi de suite seen syndicat bi est que ñu ngi mu ngi ci interpeller les autorités mais ñun depuis le début boo xoolee bi ñuy invité euh, bi ñuy invité 2 euh, sax mhm. bon bu m'excuser may citer kii bi mhm. non c'est pas grave bi mhm. s sax c'était suite bi amoon kii Mamel mooy bi bi xale yi demee foofu vacances après ñu ñu ñu ñu am problème may sa may may jaale mm-hmm. ñi ci décédé pour mm-hmm. wax ne rek ñu ngi mm-hmm. bokk ak ñoom naqar gi mais Moreau dafa dafa wane lu lu baree bare <laughs> suñu faible disposition bi parce que mënuma comprendre man en tant que syndicaliste en tant que doomi mool mool yi di dee ndar chaque jour di dee ci géej gi chaque jour chaque jour créewul autant de scandale que ay touristes. Mm. dee ci gaalu Looco. Mm. maa ngi leen koy jaale di bokk ak ñoom naqar gi parce que dénigré wu ma loolu. Mm. mais dama bëgg rek wane ne sénégalais ay sénégalais yooxuwuñ ci pour dellu si aussi ci benn information. accident yi newul na nawet la ëppee de nawet sax à la limite géej gi day dal. accident yi ngay dégg. ndar mais lu ñuy médiatiser lu si ëpp si période hivernage bi waaw mais dama lay expliquer man doomi laa ci secteur bi laa de li ëpp ci accident yi mu ngi commencé euh, euh, novembre jëm juin xam nga tax mm-hmm. parce que instant boobu la géej gi di ajouté mm-hmm. instant boobu ngay dégg accident yu baree bare yi côté Gendar leneen li aussi mooy mool yi dañoo xaw a dëgër bopp mm-hmm. loi bi lim mën def na ko du ma safurlaa mu ngi def ci ci ban pour seen protection lan la def exactement gilet de gilet de protection bi ñu leen koy jox état da ko subventionné vingt cinq mille lay jar mu jëndee ko vingt cinq mille ñu leen koy jaayee vingt cinq mille la ko état bi jëndee. ñoom deux mille cinq cent gilet de protection. waaw parce que foog nga foog nga aussi. leeral ñu leeral que ni mm. état bi mu ngi def. de taxul nag lépp baax. mais mm. mu ngi def. Mm-hmm. den ko jaayee deux mille cinq cent pour que ñoom ñu mais man doomi mool la encore une fois. Mm-hmm. fa ma dëkk yéeg ci gaal sol. sol ziré yëfi tàppet la. soo ko defee ñu ne kii tàppet la. voilà ki xamul man du du benn yoon du ñaari yoon ma ànd ak samay copains ndax dañoo sol ziré ñu bu ma xam ci ndox mi. parce que idée idéologie mooy tàpp nga que ne mhm. amoo fit mhm. mais di di problème ça pose problème parce que pêcheurs yi ab ba tey dafa des peut-être que ne état bi aussi approche bi mu defoon pour gëmloo leen ne gilet yi mooy li gën ñoom dafa des. Mm. mais jënd na gilet mu leen koy jox. Mm. mais permettez-moi de ma ma ma profité ci occasion bi aussi pour leeral leen parce que euh, koy saluer de passage euh, sam benn xarit bu nekk ci group groupe bu. Mm-hmm. pêcheur de Malo bi parce que dañu am benn ay groupe d'amis boo xam dañuy def pêche à la de Malo wu de lépp saluer passage dañu doon waxtaan matuwaay yi gi jël. pour aar suñ géej gi parce que mu ngi naan ma non suñ géej gi kenn aaru ko boo demee Guinée bi dañ ko aar ma ne ko sama wàcc man neew ma lépp jekk na mais tey Moro gaal yi nga xam ne autorisé nañ leen Sénégal gaal gu ci ne foo nekk xam nañ ko looy def xam nañ ko quand je looy def dangay napp wala nappoo da ngaa paan wala paanoo gaal gu ci nekk dañ la géolocalisé. Mm. xam nañ fi nga ne xam nañ li ngay def que ne état bi jënd na ay vedettes yoo xam ne marine moo ko yor. Mm. mën naa la woon ay photo yoo xam ni. Mhm. yor na ñaari avion benn bi dañ koy def dañuy def patrouille boobu ak armée française benn dañ koy def ak marine nationale avion yoo xam ne dañuy jóg di saytu géej gi. am nañ ay ay zoj ay bateau yoo xam ne marine moo ko yor day embarqué ay ay ay ay ay ay civil ay inspecteur ñu àgg seeti géej gi que ne ñuy géolocaliser gaal yi c'est-à-dire que ne. Hmm. tey fi tey senegal dafa yaatu ci côté ndox ba pare mool bi tey jusqu'à présent ñu ngi koy état ngi koy essayé mooy. bali ci seen gaal yi. Mm-hmm. ba bato gaal gu génn su gaal gi amee ndox rek aussitôt ñun ñu jot alerte bi xam ban zone la ne gars yi mën ko seeti. mais jusqu'à présent. Mm-hmm. pêcheur bi ci boppam moom xeer bi muy nappee buggul moroomi pêcheur am xam ko. donc boo ko bëggee tegal balise day compliqué. ça ça pose problème mais est-ce que tamit euh, ANACIM maanaam parce que ANACIM dafay coopérer souvent si mm-hmm. lool. Mm-hmm. pour wax tey géej gi yëngu na du yëngu ainsi de suite mais est tamit nappkat yi ba léegi am nañ culture. non euh, commencé nañ ko di def parce que man bokk naa ci ay. tamit ANACIM est leen envoyer ay messages je sais pas naka lañ koy. naka ngeen ko fas yéene organiser. non mais mais mais. parce que benn benn canal de distribution laa mën a parce que nekkuma ANACIM. man mm. canal de distribution ma bokk laa mën a expliquer quoi. Mm-hmm. que ne ñu ngi ci ay groupe whatsapp ñu ngi ci ay sur facebook yoo xam ni ci saa si parce que au début ANACIM doon bind ay message écrit waaw maintenant comme whatsapp a xew tey rek démb rek jot nañu message ANACIM mën naa la bo ci boole sax après nga xam di nga ko mën di jàllale fii mm-hmm. que su géej gi waree yëngu dañ la koy wax ne géej gi dina yëngu noor dina yëngu fii vague bi toll na nii c'est-à-dire dafa am alerte lu ñu naan day alerte yu jaune ak alerte rouge alerte bàyyi leen ci xel alerte rouge toog leen seen kër dafa am ñaari aspect yu ca mhm. benn mool bi alerte bi da koy fekk géej d' abord. instant bi kii di wax loolu laay expliqué. waaw instant bi ANACIM naan. Mhm. géej gi dina yëngu. moom est na ko yëg heure ba mu ko war a voilà mais mais am na ñoo xam ne sax des fois dina ko yëg mais c'est trop tard. Mhm. instant bi muy jot information bi di ko divulguer parce que nag foo expliqué que gaal yi newul yëpp ay dem tey ñëw tey de. am na navi gaal yu loo ci yoo xam ne dañuy dem tey. ñëwaat ci ngoon si am gaal mooy li naan pêche du jour. Mm-hmm. am na gaal yoo xam ne dañuy dem tey ñëw semaine mooy maare kii am na ñuy maare laaf kii dañuy dem def ñuy def weer géej. Mm-hmm. cest à mën nga génn tey géej gi normal tout normal nga def trois jour ñu annoncé ngelaw mu jaar sa ginnaaw géej la la fekk il va falloir nga adapté wu ci ci. Mm. conditions yi temps temps bi sax jeex na Mamadou Lamine pratiquement mm. quelques minutes moo ñu dese. Mm. deux trois minutes. Euh, kon pêche illicite nee nañ dafay perdre loolu toll ci quinze milliards de francs CFA fii ci Sénégal xam nañ tamit pêche en tout cas ci wàllum koom-koom am na importance bu baree bare ci économie bu Sénégal mais est-ce que da ngay dëggal ci pêche illicite li muy yàq ci euh, koom-koomu réew mi. ak tamit lu muy yàqal vraiment. pêche artisanale day yàqal lu baree baree ba ay milliards la ñuy perte. comme ni nga ko waxee léegi ay milliards yi milliards la euh, boo ma ko permettre rek li nga xam ne moom laa bëgg a woote waat mooy lancé ko parce que lancé ko mooy mhm. que muy forum civil mhm. que muy ñun intersyndical bi mhm. que muy ministère ministère tey état moom moo yor ndogal état mooy réglementé géej gi man li appel moo ne la wooñ see ñëpp ñu toog waxtaan parce foog naa ni problème bi ci waxtaan lay mujjee bu ñu nangu ñun ñi nga xam ne ñun dañuy lekk jën ñun ñi nga xam doomu mool lañ ñu focaliser débat bi ci chinois yi ak français yi xëccoo géej gi yeneen problème yi ko gën a rëy ngi fi tey observateur yooyu tànk ram de deloowaatuñu leen ci bato yi mm-hmm. ñu indi information mënuñu xam xew ci géej gi mm-hmm. donc yow daal da nga jàpp ne les observateurs dafa nekk un pilier fondamental pour ñu mën a contrôler pêche bi amul werante waaw maanaam bu ñu leen seppee teg fee rek amatul sens ay code de la pêche ak yooyu amul sens parce que fooy jëlee information amul sens mhm. que ne loolu appel la bu ñuy tamit lu observateur bu fekkente ni tamit mettre leen dans de bonnes conditions voilà mën nañ leen a corrompre en plus voilà léegi nag pour dellusiwaat ci loolu cest à am na ñoo xam ne xaar nañu wax la nag li wax na mais ci observateur dafa doy waar am na hmm. observateur xam maa ngi jaal njabootam wadd na géej ba tey kenn gis ko wax ne rek observateur bi euh, lancé état bi ne ko d' abord ardoise bi nga xam dañ ko waxal observateur bi dañ koy bi hmm. nañ ko fay nañ leen ko fay benn ñaareel bi mooy nañu delloowaat observateur yi ci gaal yi nga xam ñooy napp Sénégal parce que observateur boobu su ci nekkee njëriñam dafa bare torop hmm. observateur boobu mooy fekk tey démb ak barke démb yëpp yaa ngi xeex ak mool ngi xeex ak bato yi. Mhm. parce que da nga dagg cent mbaal daggoo cent mbaal kan mooy tranché. Mhm. alors que observateur bi su nekkee à dina xam li ci dëgg. parce que moom état fi nekkal. Mhm. nekkal boo nee da nga dagg cent mbaal ñu yéegee fiile bi nañ xam dagg na ko wala daggu ko coow lii. te yow tey donc bu dee observateur yi nekkuñ fa kan moo fa nekk pour régler le problème. non si terrain bi. si géej gi mooy li lay wax musiba yi nga am fii fi mu nii. kenn dama xamal gën a doy waar bato bi day dagg sa mbaal yàqal la juróomi million mm-hmm. nga ñëw à terre mu mu proposer la euh, cinq cent mille mm-hmm. boo bëggee nga jël boo bëggul nga bàyyi parce que vide la bu nekk ci code de la pêche bi les pêcheurs artisanal moom artisan moom dañ leen laisser a eux mm-hmm. mais yooyu yëpp nag pour ñu mën ko defaraat ministre bi nee na dama ñëw pour defar mais ay la yëwan déglu ko balaa ngay mbi parce que ku ñu ku dama ne ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu bett nga defaraat sa toogaay ni nga toogee woon baaxul que mm. ne dafa ñëw pour defar nañ ko déglu ba xam ne bëgg a defaree leneen li mooy man tam je comprends les acteurs mm. parce que gars yi dañ leen dóora dóora en ñi fi jaar ñu ci baree bare dañoo nekk seen bopp dañoo nekk seen bopp ba dañuy ragal ne mm. keneen ku fi ñëw it sa bopp na la nekkaat ayca ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi ak sa mbokku pêcheurs yi Mamadou Lamine Diop waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu euh, euh, di jéggalu dégg la sax temps bi ñu ko mais am na point yu bare bare comme mm. ni ma ko waxee mm-hmm. yu ñu bëggoon développer mais li nga xam ni waxtaanee nañ ko fi man suis ouvert mm-hmm. que képp koo xam ne bëgg nga ñu indi ci ay leeral ma dama ne man mm-hmm. jusqu'à présent fu ne wax nañ ko fa dañuy demander ñu appliquer code de la pêche bi ba pare ñu woote waxtaan li ci baaxul ñu defar ko parce que code bi newul mooy prépa mooy mooy mooy mooy protéger ressource bi ndax code boo xam ne day bàyyi salutier yi ñuy napp ci zone yi nga xam ne la jën yi juree code boobu baaxul te tey boo demee au large de Casamance. Mm. salutier yi ñu ngi nappee ci zone boo xam ne fa la jën yi juree loolu moom on ouvert di woote nag que ne ministre bi na woote waxtaan que ne syndicalistes yi ñëpp daje ñu xool li nga xam ni moo gën ci Sénégal ci sénégalais yi ñu adapté ko te bàyyi coow li que ne lii acteurs yi def amul benn njëriñ lii ñu koy jiiñ fii la ko fekk ak yeneen yoo xam ne kenn ñemewu ko wax. ku ci nekk ci ñoom ñiy tamante suñu la waxee ca lam nekkee woon nga tax sa gémmiñ donc nañ def table ronde ñu wax ngir Sénégal ngir Sénégalais yi ngir ñaruñu napp gi pour man loolu moom am njëriñ. voilà ñu koy remercier bu baax a baax Mamadou Lamine Diop nekk ingénieur des pêches et de l' aquaculture nekk tamit chargé de communication bu intersyndicale des travailleurs euh, de la pêche et de l' aquaculture ITRAPAS ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10h à 11h di remercier Léon Paul Mendy ci euh, technique bi kon day Kumba samedi prochain euh, ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu portaay internet www point rewmi point com www point rewmi point com wala ci suñu chaîne euh, YouTube Rewmi officiel di leen remercier bu baax a baax ba samedi prochain incha allah